ñu bokk ak yow tiis bi nga xam ne dal na ci moom la ñu génn àdduna Moussa yaakaar naa ne ku ne mën naa wax ci Moussa Diouf rawatina yow nga xamante ne yéen a débuté carrière ànd ak moom ba tey fii mu mu dëkk yan seede nga ñu mën a jox ci Moussa waaw euh, damay def rek euh, santaat ñëpp. Hmm. Euh, sant seen taxawaay aussi sant yàlla jul euh, suñuy waajur euh, sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel Moussa dama ko ne sama sëriñ euh, nekk benn tiis xamante ne tiis bu la Moussa ñu ngi ànd bi ñu amee ay 18 ans dix-huit ans vingt ans xam nga loolu du léegi ñu defandoo lépp mu nekk sama xarit nekk sama frère musuñu xuloo musuñu xeex musuñu am benn problème ndax foo ko fekk ñu ngi kaf di ree loolu moom mu gën a impressionné keroog laa toog defaat analyse ma yëga niveau bi musuñu xuloo côté baalante ak yooyu musuma xuloo musuma jàppante mu nekk service boo xam ne bi ñu ma woowee ne Moussa Dioum lañ dafa génn àdduna dama leen ne baa leen tuuru njàmbur yi ngeen di fawee parce que mënu ma ko woon gëm parce que il faut il faut que nit wax ma ko keneen waxaat ma ko ma ne mais attends ñii wax nii dafa bëgg a jege dëgg de prix vérifié ñu naan ah ñi ci koñ bi nee nii man ma bañ a yàq sama guddi man laa tëddee noonu parce que bëgguma woon sax affaire bi nekk pression ci man parce que xam nga rek ñit ñi moom dañuy wax lu leen wóorul ma yëgee affaire wax dëgg yàlla nekk na moom bett torop torop torop torop torop xel nga gëj a gis Moussa Moussa Diop maa ngi koy gëj a gis yàggul ñu ngi jigi jigi esat lañ dajee esat lañ dajee vraiment gisee waxtaan comme niñ doon tooñante ñuy fàttali ko jamono mu naan ma faatañ buñu deen ba di xëccoo poids lourd yi parce que poids daan ndeysaan buñu dee da man dafa naan maa tib maa appoo poids lourd bu ko laal xoolu loolu ndax mën bëre bu mu mënoon bëre Moussa Dioum doon na jommal ñëpp ci bëre man après Moussa Dioum ndeysaan dafa daal après ni ma gis doxalim doon demee mu nekk koo xamante ne il a tout mérité donc ko dal ah, yàlla kenn du ko coog moom ndax bisu weeru koor yi mu génn àdduna tamit dañu ñaan yàlla euh, cet bañ ko jut si bàmmeelam yàlla xaaral ko àjjana yàlla yërëm ko yëngal yëngal nga feebaru Moussa. non yëngu ma feebaru franchement. yëngu ma feebaru Moussa. man moom lu ma bett loolu. wax dëgg yàlla dégg yëngu ma ko dégg ma ko ci nit. xaw ma Moussa kan la feebar ak léegi bu kenn ko te léegi sunu grand bi Mame Less bi moo nee affaire bi léegi léegi. muy ay góobu tànk. ma day na war nekk na loo xamante ne aussi xëy na lu waroon am la yaakaar naa ne góob moom yéex na li mu yóbbu nit te kenn daggul tànk dara dara xewul donc mu nekk loo xam ne xëy borom moo ko namoon ci weeru koor gi te ñu ñaan yàlla mu gëj fi lool ndax ban ban anecdote a jox loo xam ne doo ko fàtte ci Moussa Diouf lu la marqué non Moussa dafay nekk nit boo xamante ne il est sympa dëggal ma la fi ñu demoon li mën a fàttali moom mooy fu dem ba pat mu ne ma maa jël poids lourd te nuñ ko wax defee kon tey làmb doy na waar ru Moussa tax nekk roi des arènes man daf ma yéem dafa non mais dama la xam naa ko li ma wax dama ko xam Moussa Diop pour nga daara ka entraînement lu na nga si daj naa la surprise la ci man xëy na kon suñu borom li mu ko dencal dafa ëpp loolu fuuf ndax dem àjjana te yàlla na ko suñu borom def moo ëpp doole nekk àdduna ndax c'est à l'éternel lu jeex la. ban message ngay sànni sa nawle mbër yi nga xamante ne du ay noonu tàkkusaan benn tàkkusaan moo leen xool ay espoir lu mel ni dafay xew ñu gis mbër yëpp ñu dajaloo ñoo toog bokk ndey bokk baay ban message nga leen di làmb sport la rek làmb du ennemi. xëy na supporter bi ñoo ñoo bokk ko bàyyi chaque jour maa ngi dégganteeg champion yi soit bu ñuy waxul WhatsApp daje nañu tooñante kafre kon loolu lañu exemple la pour ñëpp parce que lii nii day wane ne tey tey booy noonu ba mu xëy génn àdduna foo jëm hmm. lan ngay def da nga ñëw jaale ko ah xanaa doo ko jaale tey lii sport la nekku ñu MMA nekku ñu si nekku ñu ñooñ sax dañuy nekk ay ndey ak baay waxuma ñu nga xamante ne ñoo bokk Afrique ñu bokk Sénégal bu ñoo bokk nday ñoo bokk nday chaque jour yi nit demee kenn wala dara xew nga dégg ñoom njëkkate kii de ki mu jaw doomu nijaayam kon ñu ñi war nañu ànd ak seen conscience xel bu dal euh, di di di tàppe seen xol yi temps yëpp gis internet bi lu ne moo fi xew te lu yëpp nit war nañ ci boytu xamuñ ne àdduna yàggul àdduna ñëpp ay dem kenn du fi des ana milliardaires yi fi nekkoon ñëpp ay dem lu yëbu rek xam ne te kenn xamul nag kañ la tey la wala suba la kenn xamul kañ la yàlla na yéex lool yàlla na yàlla may gudd fan ak wér gi yaram lool ba ñu gunge sunu papa yi tam yàlla may na gudd fan ak sunu yaay ñu gudd gungee ñu bés kanam waaye yàlla na yéex mais dañ na xam dañu xam ne àdduna dara joru fi rey sa bopp dañu yàlla nañu yàlla may sutura jox lu ñu suturloo loolu daal laa di ñaan ban message bi ngay ngay pour mbër yi nga xamante ne fi ne ñu ngi tëdd si tëdd feebar te amuñu ku leen dimbali moom yaakaar naa ne il faut ñu nekk au courant rek ndax wax dëgg yàlla gis nañ suñu vraiment Sa Kajoor récemment bi muy feebaree bi ko Marème Faye Sall yéegee jóg jóg na ko vraiment jàppale na ko il faut wax tamit li li lii bonne volonté yi def di leen encouragé li ñuy ne kenn na kenn bu feebaree yàlla mooy yéen ñii sax journaliste ngeen teg ci part de responsable il boo xamante ne tey lépp lu xew di ngeen toog am benn président mu diriger ko ñu xam ne message ñëpp jot nañ ko ndax doo yéen looy lancé mu jàll si yaa ngi fii Sénégal ñëpp a ngi fi nii tey lu nit lancé dina jàll bu ñu ñu bàyyi itam di nëbbu li may wax chaque jour feebar bu nëbbu bu feeñ moo gën bu nëbbu ndax feebar bu nëbbu ku koy xam day xëy xëy mu génn àdduna moom laa wax ci don de sang bi keroog bi gars yi di may ji boo may ji rek ci sa génne génn mu feebar day fekk feebar bu nekk ci yaram bi tey bu nëbboo la nit feebar bett rek xëy rey leen kon nit ñi nañuy communiquer ñun ñu nga xamante ne mën nañ a jàtte jottali côté ministère côté lu ay président charge ñu bëri ñu ngi toog fii di kaas te fekk ñun sax yëguñu xew man de ku ma nit tegee besoin lu ma mun dinaa ko def ba boo ma président saa dem faj yi laa ko waxee si télé yaa ngi dégg nañu fexe ba fi mu war a jàll mu jàll fa nañu bàyyi nëbb feebar yi man li nga wax nii xaw ma beneen mbëru feebar xaw ma beneen mbëru kon na nañ jàllale message bi a travers la journaliste yi nga xamante ne yéen nga xamante ne a yéenay taskatu xibaar yi ñi leen koy ñaan loolu am ngeen part de responsable gis naa site yi koy def nag mais social plan RSE da ngeen ko war a boole seen programme vraiment ñi leen jërëjëf